man nag je suis un leader boo xam ne aw ma. aw ma aw ma aw ma aw ma religion ma man Kamal Kamala aw ma aw ma en politique aw ma religion. Mm-hmm. en politique man je républicain maanaam man sama askan moo ma intéressé. te boo ñëwee ci sama parti di nga gis ne ñi ma dar ñëpp. daanaka bokkuñu ci sama ci sama sincèrement Bruno mu naan sama parti sama parti ça me fait parfois rire tamit. ah pourquoi mais parti bi est-ce que mu ngi dund. mu ngi dund kay bu dundul woon dina ko woote. bon non ah laajal laajal laajal waa réew mi. parce que nag waa réew mi. waa dëkk bi waa dë non waa réew mi sax laa wax parce que du yem ñun yemuñu Dakar euh, département Foundiougne nee naa la foo dem foofu. ñëpp ko xam foo dem gox boo dem de dëkk dëkk laa la wax boo dem bu dee sax fukki nit a nga fa. laaj leen Bruno D'erneville ndax xam ngeen ko ñu indi la Foundiougne dëkk Foundiougne. man dama yaakaaroon nag man. waaw ah, Foundiougne fekk fa sama représentant. non mais Bruno D'erneville la ñu gën a xam mais les 17 communes 17 communes du a des bureaux naa ne Aliou Mamadou Dia Bruno D'erneville moo gën a siiw parce que Aliou Mamadou Dia bi ñu ko tuddee. ñu ñëpp dañ doon wax kan mooy kooku alors que Bruno. waaw mais tey fi mu ne Aliou de fi mu ne nii moom a gën a siiw de parce que appareil pur bi ah. bi taxaw ah appareil pur bi taxaw nii ah di ko ñu liggéeyal non wóolu nañ ko hmm. donc côté boobu je pense qu'on n'a pas d'inquiétude à se faire te foog naa ne ñu bëri ñu ngi ñu ngi gis ci moom loo xam ne yërmande ak yenn qualité yoo xam ne soxla nañ ko fii mu ne nii hmm. qualité yoo xam ne qualité d'unité dafa nekk koo xam ne day dafa xam ni ñuy dégloo nit hmm. dafa dafay wërmal nit donc loolu dafa am solo torop bokk na ci li nga xam ne euh, amuloon jafe-jafe pour ñu ànd. Mm. parce que nit ñi xam nañu ne ñun taxawaay bi ñu am c'était toujours taxawaay boo xam ne ñun dañuy wax dëgg suñu dëgg la ñuy wax. Mm. ak li nga xam ne dafa jublu ci defar réew mi. Mm. souvent euh, li ma doon jottalee ak samay yenn xaritu Pastef bi sax c'est que parfois dañ doon gis ne damay am ay position yoo xam ne mel ni ki damay faral Macky Sall mais nit ki bu defee lu baax da ngay wax ne def na lu baax. loolu mooy honnêteté intellectuelle loolu nag ñun dafa nekk ci suñu ADN. loolu gis nañ ko ci candidat bi nga xam ne mooy Aliou Mamadou Dia te je vous garantis ci suñu biir mais il une démocratie qui est extraordinaire hmm. dañuy waxante chose choses normalement sans sans tourner autour du pot loolu nag baax na ci njiit parce que njiit boo xam ne nangu na ñu wax ko ne tànk yi du fii hmm. nii la mu xool xoolaat ne ah kon wax nga dëgg njiit boobu jar na topp mais njiit boo xam ne dangay wax mu ne la no kii non man li ma intéressé lay def non kooku il faut ñu ñu moytu ko.